salaam mbokk yi safin 7 TV maa ngi bëggee ñëpp di ziar di ñëw ngeen chef fonction tàkk téere mi gën a fas yéene journée tamit tombé le samedi 3 décembre dañuy vidéo bi dañ koy yaa jagleel lii di yaa coupe du monde bi nga xam ne nag mi ngi xew foofu sa Qatar phase de poule jeex na démb kon nañu classement poule après ñetti journée yi muy ñetti journée phase de poule yi poule A bi muy poule Sénégal bi Pays-Bas moo fa jiitu ak 7 points troisième Équateur quatre points quatrième Qatar zéro point poule B bi Angleterre moo fa jiitu ak sept points États-Unis deuxième cinq points troisième Iran trois points quatrième Pays de Galles un point poule C bi Argentine moo fa jiitu ak six points deuxième Pologne quatre points troisième Mexique quatre points Pologne goal différence la ko rawee ak nombre de cartons quatrième Arabie Saoudite trois points poule D bi France moo fa jiitu ak six points Australie deuxième six points. France moo ko ëppale góol différence moo tax mu poule H Portugal moo fi jot ak 6 points Corée du Sud deuxième 4 Uruguay 4 points quatrième Ghana 3 points. fukk ak juróom benn yi nga xam ne nag ñoo qualifié ci de finale yi Angleterre la Argentine Australie Brésil Corée du Sud Croatie Espagne États-Unis France Japon Maroc Pays-Bas Pologne Portugal Sénégal ak Suisse. affiche huitième de finale yi nii la demee ak programmation yi. tay ya samedi su 19h dina ñama Argentine contre Australie suba si dimanche bi France dina laale ak Pologne su 15h jotee 19h dina ñama Angleterre contre Sénégal gannaaw suba di euh, lundi su 15h jotee dina ñama Japon contre Croatie 19h ñu am Brésil contre Corée du Sud le 6 muy tombé la mardi. Maroc dina am Espagne su 15 heures jotee Portugal am Suisse su 19 heures jotee kon loolu ma yee affiche huitième de finale euh, coupe du monde bi ñoo jeexal euh, coupe ñoo jeexal phase de poule ci benn défaite ma yee euh, Angleterre Maroc ak Pays-Bas classement meilleur buteur maanaam daal ñoo pële ay but Mbappé bu France Valencia bu Équateur Cody Gakpo bu Pays-Bas Marcus Rashford bu Angleterre ak Alvaro Morata ku nekk am na ñetti but foofu la ñuy yemale xibaar yi di leen jox dig daje benn yoon si di leen ñaan ngeen aimé te activé cloche notification pour jot xibaar yi.